yëg ndam li laa waaye lii ma leen di wax yéen sénégalais yi dama ne leen woon man duma leen fen ci seet président Ousmane Sonko mbiram nekkul ci ay këyit xanaa tey kon man yay naa leen yàgg ngeen maa seetaan duma leen fen dama ne leen président Sonko mbiram nekkul ci ay këyit waa bu nekkoon ci ay këyit kon xanaa delloon nañ ko ci këyit yi mhm. lii dëgg rek laa la wax ak li nga xam ne day dugg ci ay nopp ak li ñu seet ba suñ borom may ñu ko mbiram bu nekkoon ci ay këyit kon delloo nañ ko ci kayit yi première deuxième mooy ma ñëwaat na la président Ousmane Sonko mooy falu te mooy fal kii falu te li ma wax nii képp kuy takk ñor doo ko dindi te li ma la wax moo am loolu yàlla def la gis nga man duma ñëw ci mbir moo xam ne damay dugg ci lu ma xamul wala may wax lu ma mënul duma ko def te mbiri président Ousmane Sonko duggewuma ci noonu waaye senegale yi nañu bàyyi nañu bàyyi xel si suñu bopp ne kii ñu àndal wallaahi buñ ko xamoon te waggar ko te xam cër bi suñu borom def ci moom muy président Ousmane Sonko yaakaar naa ne lu bari du demee nii waaye nag ndokk ba ñëpp wala ñi am na ñoo xam ñi ëpp sax doonte xam nañ ko waaye ñun la yàlla bindee noonu tey boo ñëwoon yàlla suñ borom may la nga wax mu am comme Serigne Mara nga waxaat mu ñëw réew mu yëpp dañuy siiñ fang lenn képp mooy solo si mooy. di xeexak di la kër kërloo ak di jéem a ngir say mbir pour yàq sa yëf kon nag Sonko tey bu fekkente ne ñëw na taxawee position boobu damaa gëm ne ñi bon rek ko koy bañ te ñoo koy yàqal. dama bëgg xam ndax du kuy góorgóorlu koo xam ne wax tey nga ko gën a dëggal ou pas Serigne ma mooy da ngay mooy falu mooy fale. tey tey tey jii laa gën a dëggal ne président Ousmane Sonko mooy falu mooy fal kii falu. mais après li fi jaar yëpp dem na. di fiche de parrainage fiche de parrainage xam nga président Ousmane Sonko toogu leen fi woon ne leen am na ndam. waxuma leen ko woon. na leen tey damaa kontaan lii ma gis di ñëw dafa neex. d' accord suñu émission bu mujj. d' accord naan waa sëñ bi lu muy wax nii manaan leen tey damaa kontaan tey sax damaa firi di ree na leen lii ma gis di ñëw. wax nga booba booba ñu bari ña nga naan ah kii tey la dernier délai tey lañ koy rey dootul mën a voté dootul mën a kii waxoon ngeen ko fi na leen waxante rek dëgg te yàlla tax Sénégal man jomb naa di wax loo xam ne ëllëg damay dar sama gémmiñ léegi nag. li wér mooy dama areeraat tuuti ci li ma waxoon mooy dama ne leen woon bu ko neexee. Mhm. na tëddal noppam jëmmam. ah waaw. président Ousmane Sonko. ndax la bu ko neexee na tëdd noppal jëmmam. képp ku yàlla dogal tayit maa ngi jox sénégalais yi exclusivité. d'accord mbir ngi jóge ci président Ousmane Sonko ci ay fan yu gàtt. te sénégalais yëpp danañ ci jot te nouvelle bu neexee noonu mësta tàbbi ci biir noppi sénégal yi. ah bon maa ko wax de. te ci président Ousmane Sonko lay jóge nouvelle. nouvelle bu neex a ngi jóge ci président Ousmane Sonko tàbbi ci biir sénégalais yi te nopp patriote bu mu dugg mën ngaa jóg fecc te xam ne saa boroom kattanal nañu te may nañu ndam. te lii man maa ko wax mbir a ngi jóge ci président Ousmane Sonko di xibaar bu neex ci biir patriote yi. wàllu seet nga gis. bul ne ma wàllum seet lu ma gis la nga man lu may seet nga naan ma wàllum seet wàllum gis ah ma nga ca kii ba di amaguma amaguma visite ngay wax ni <laughs> man koo seet yi eh, eh, eh, wàllu yu suñ borom bi. d'accord seetee gu ma ko di. d'accord xam nga benn mbir damaa wax sama benn xarit ma ne ko Sonko dafa def ñett. Mhm. Sonko. Mhm. dafa def ñett yoo xam ne doy na sëkk ci ndamam. mooy. Sonko dafa simmi. ok ba noppi dafa solal. mbaa yaa ngi may dégg. bu baax yow laay déglu. ba <laughs> yow rek laay déglu. <laughs> tax DJ DJ yéen mérité Sonko nag baal ma ci wax ji. d'accord mérité woo leen Sonko. ñett yi dafa simmi. Mhm. ba noppi dafa solal. ba noppi dafa fale. xam nga ñum fal waxkatu dëgg yi ci réew mi nga xam ne bu asamaan si doon wàcc sax dañuy wax dëgg ñooñu bis ni ki tey muy ay juge muy ay procureur falu nañ ci réew mi te doodu ñu wàcc te dañuy dugg ci histoire ba àddunay tukki laaj ma ñoom summi kàccekat yi d'accord kàccekat yi nga xam ne ñi ngi wax mbir te mu wóor na leen ne lii ñuy wax du dëgg ba seeni sët histoire da koy bind xam ne ñii ay kàcckat lan d'accord kii nag ñett yi nga xam ne dafa ñëw mu feeñal ba noppi fale ba noppi simmi nag def katu ñaawtee fi moo tax tey buñ naan état de droit état de nangam waaw xanaa xanaa Sonko moom moom ay droit am fu ngeen ko teg Sonko dañoo bafoué ay droit am ba noppi dafa tàggatoo ak sénégalais xam nga ci ñaar lool tax ma gën koo jàpp. ci ñaar. Sonko bu doon yàmbar man banaa ko dane on ne négocie pas avec un pistolet sur la tempe ma ne ko oui c'est ça la réalité le président on ne négocie pas avec un pistolet sur la tempe ma ne ko au oh, beau gosse c'est le beau le garçon mais il faut accompagner ceci en palais tout le peuple sénégalais puisque doo ñëw teg sama bopp fetal ba noppi naan ma kaay ñu négocier ci jalage lan te tey ñi jalage woon tey ñoom ñi ngi xam daal ku ne xamagul foo jëm. d'accord booba booba laa déglu wax ji ma ne kii kii du am yambar te kii ku ànd ak moom wallaahi sa yaakaar du tas. ah yàlla na sa yaakaar tas yow de dafa ànd dafa. Eh, eh, non dama bëgg bul ne ma non. non dama bëgg non non wax ji wax ji wax ji li may wax dafa leer. tey nga gën a am yaakaar donc après li xew. yow tey nga gën a am yaakaar ku ma sa ñàkk yaakaar ba naan ma tey nga yow yow yow xanaa nag. man pouvoir de cassation boo xamante ni cassation ak mbiri Sonko nekkul ci ay këyit. wala yéen nag da ngeen a bëgg man ma simbeeku. d'accord mbiri Sonko bu nekkoon ci ay këyit kay cassation kase na ko. d'accord tey ndamam yii mu tegale ba adduna yëpp xam ne mi ngi ki ndam lii da lañ doon ñaan yàlla léegi nag la ca des moo moo moo li naqari lépp paase nañ ko la ca des nag mooy ay bànneex léegi nag yéen li ngeen di ngawti ngawteeg di tappet ak di gof goflu ak di ragar-lagar man nekkuma foofu déedéet man nekkuma ci loolu xam nga ci lu ma ne fi ma teg sama tànk laa ci teg ta du ma ci yuqet ça veut tey tey nga gën a dëggal sa bopp ci li nga waxoon. tey laa gën a dëggal sama bopp ci ànd ak président Ousmane Sonko benn. ok tey laa gën a dëggal si sama bopp. waxuma la damaa jëlale Sonko tey laa gën a dëggal sama bopp ci joxuñu président Ousmane Sonko te loxo dina jëm gémmiñ de gars mbir mi dajjeeku na de yaakaar yi tas na. alors euh, euh, leneen yaakaar yi tas na. yaakaar yaakaar yi tas na. gaa ñi seen yaakaar yi tas na. maa la ko wax de li ñuy foog li ñuy def lépp dara du ci am. c' est dommage que tu nga naan ma c' est dommage actuellement nii buy wax buy wax buy waxee nii ci Ousmane Sonko parce que euh, on entend na souvent euh, di wax ne. <laughs> par exemple Serigne Mara. Mhm. quand même dafay euh, waxu partisan lay wax parce que li muy wax bëgg gu mu bëgg Ousmane Sonko wala li ngay wax looy seet ba gis ko la soog koo révélé. man li may wax dama koy seet première ba gis ko. d' accord deuxième mooy man damaa bokk ci patriote yi. te képp ku baax xam nga patriote mooy lan mooy ku bëgg sa réew ku bokk ci ku bokkul ci patriote yi te balaa ngaa mën a bokk Pastef da ngay am Pastef waa sëñ bi na leen wax benn benn mbir mooy euh, ex Pastef est-ce que xam nga benn mbir mooy <laughs> moo tax damay ragal ñu tasaat ex Pastef baa duñ ko tas ex bi ñu tas ko waaw ok ex passif de laay fi ne ndax taxawal passif ex passif ñëw ëpp doole passif lii de yàllaa ko man te mën nañoo tasaat ex bi quoi. ex bi waaw moom laa bëgg <laughs> nañ tasaat ex bi double ex passif moo tax ñu ci bari ay bukki lañ yu sàngoo deru bëy Euh, ñoom ci passif lañ bokk ba noppi bëgg a tas passif. lenn dinaa la ko laaj parce que xam naa ma taxee wax dëkk bi dina yëngu de waaw. xam naa ni sax xam-xam màcc na jëm ci mhm. wàllu seet. Mhm. Euh, loo wax itam suñu borom. Mhm. dogal ni loolu dafay am àllaakulaa. yàgg nga ñu wax ni Ousmane Sonko dafa am. daju kilifa ak may xeeñ sax.